di ko tàmbalee ci li ñuy wax rek bukki sàngoo deru bëy liñ naan liñ doon taqal ku mel ni sunu waa ji Guy Marius Sagna doon ko jiiñ mbirum terroriste ak yi ni mel tey li xew wane na ni lool ñu doon wax lépp lépp lépp lépp dara amu ci ñoom dañoo am seen programme ñëw bëgg ko wékk Guy Marius ndax day day day déranger ci kaw loolu lii mën a firndeel loolu mooy le 29 janvier bii passé dañu jàpp suñuy huit camarades ñooñu ñëpp bàyyi nañ leen te niñ leen bàyyee ñun ñëpp gis nañ ko injustice bu bu bu leer la bu ñëpp mën a teg bët tey kiñ ci soxla woon dafa leer mooy Guy Marius moom ba léegi ñu ngi ko téye ci kaso bi te bu ngeen seetloo mus nañ ko fi jiiñ attentat terroriste ay mbirum terroriste ak yu ni mel bu ngeen fàttalikoo ci jamonoy euh, Coupe d'Afrique bi jàpp nañ fi Guy Marius Sagna di ut ay motifs yu ñu teg ci kawam biñ demee ba ci bisu finalu Coupe d'Afrique bi ñu jël ko ci lañ ko defeere loolu yëpp nag état bi di def sénégalais yi war nañ ci bàyyi xel liñ ci war a jàng mooy dañu yor état boo xam ni ni muy doxaleek population am ay naxante la te loolu war nañ ko comprendre parce que bu fekkoon Guy Marius Sagna dérangé wul loolu yëpp du leen ci fekk nit ki boo ko jàppee moo am ay motifs yoo ko mën a téye dafa simple da nga koy jël rek dugal ci kaso bi motif yaa ngi fi doo am loo ci wax mais bu ngeen seetee boobu ba léegi nguuru Sénégal noonu rek lay doxalee day jàpp ay nit di leen denc ci kaso bi sans aucun motif te loolu dafa war a denc réew mi ci kaw loolu ñu ngi leen di. wax ni sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo war a jug fajal seen bopp li xew ci réew mi tey Guy Marius Sagna day dérangé ndax bu ngeen seetloo Emmanuel Macron waxoon na fi ne ñi nga xam ni tey ñooy jug di song ay intérêt France seen gouvernement yi nañ wax ak ñoom parce que ñoom ñooy signé ak ñoom ay contrat yoo xam ni ñoom ñooy signé ak ñoom ay contrat yoo xam ni ñoo war a alerter seeni doomu réew waaye ñu xam ni contrat yooyu ñuy signé baaxul ci sénégalais yi baaxul ci africains yi ñu mel ni ñoom Guy Marius Sagna ak Kémi Kémi Séba loolu la ñuy dénoncé saa su ne saa su ne saa su ne ci loolu nag lañ nekk loolu tey moo waral collectif ñoo lànk taxaw di lànk loolu lépp nga xam ni suñu état yi ñu ngi koy def muy complot ci diggante état yi ak yeneen i état jëm ci seeni askan te loolu duñ ko nangu en 2020 lañ nekk am na ci loo xam ni sénégalais yi mënatuñ koo nangu mënatuñoo nangu ay njiitu réew taxaw di signé ay contrat yoo xam ni di def ay maguy yoo xam ni seen doowu population yi ñu toog ne cell duñ ci ne cell moo tax collectif ñoo lànk jamono yi yëpp ñu ngi teg ay activités yoo xam ni ginnaaw bi ñu jógee ci manifestation yi ñu doon def nga xam ni troisième âge bi yëpp fekk si nañ ñu ci loolu ndax liñ doon li ñuy liñ leen di leeralal mooy mbirum courant mi nga xam ni état bi dafa ni day yokk courant pour yóbbu ko ci dëkk yi gën a sori te loolu ñun ñëpp gis nañ ni loolu du objectif bi seen objectif mooy dañoo am gab boo xam ni ñoom ñoo ko indi ci trésor pibliku Sénégal te ñoom ñoo jël alalu réew mi foowee ko ba noppi bugg ko jëlaat suñuy poos mhm. loolu nag population bi dina ci jug te du duñ duñ ko seetaan li gën a piir li gën a piir mooy bu fekkoon dañ nañu dañ koy yokk ci 10 pour cent rek yam ci ñu ne leen waaw waaye 10 pour cent yooyu sénégalais yëpp xam nañ ni romb nañ ko mën naa ni 100 pour cent la ñuy dagg sénégalais yi ci prix de l'électricité bi ñu ne dañ koy yokk loolu moo tax ñoo lànk di xeex te gis ngeen xeex boobu ñoom seen bopp dem nañ ba xam ni carrément mënatuñ téye nit ñi ndax seen dëgg lañ nekk moo tax bi ñu lancé flyers fépp gis ngeen ni dañoo génn fii police bi di dal suñu kaw ay policiers yoo xam ni déjà ay civil lañ ñëw di arrêter les citoyens yi nga xam ñooy marche te amuñu ci wàll amuñu droit def loolu bi ñu riposté ci loolu li ci xew duñ leen ko wax jàppoon nañ ñu fi téye ñu mais bi ñu riposté ci loolu gis ngeen ni carrément ñu ngi ciy dellu ginnaaw ndax bëri bërki démb bi ñu génnee jàpp nañ ku mel ni kilifa waaye dañ ko mujj bàyyiwaat ndax ñoom ñiñ koy sant ñu koy def xam nañ ni sax liñ leen di sant c'est illégal te réew lañ nekk moo xam ni dafa am ay charte yoo xam ni moo tënk réew mi ci lépp lu fi waay def te waroo ko def am na loi boo xam ni moo moom la ñuy teg sa kanam ne la lii moo tax ñu mën la jàpp waaye dañuy jàpp nit ñi sans motif loolu nag bu ngeen ko gisee mooy dañ naan ku aj dangay bañ ku téen ñun duñ seetaan loolu ci kaw loolu collectif ñoo lànk xam ngeen ni tey flyers fépp lañ lancé am na itinéraire yu ñu jëloon démb am na itinéraire tam yu nekk sunu kanam di leen fàttali tam ne ku mel ni waa sunu mbokk yi nga xam ñoo nekk Tëngéej ñu ngi waajal ñoom it seen manifestation vendredi di ci woo ñëpp ñu teewe ko te loolu lañ nar a continuer ci Sénégal gépp ba ci àddina bu ngeen xoolee flyers yi ñuy distribuer ba ci àddina yëpp yéen a ngi gis sénégalais yi di jub di dem di ko dépo di di di déposer ay di di di distribuer ay flyers di di alerter opinion bi di leen wax ni carrément arnaque la boo xam seen population moo koy def seen kaw di wax ni Guy Marius Sagna dinaa ñëwaat ci moom day déranger bu ngeen xoolee démb lañ libéré suñu ñaari camarade ku mel ni Leuz Def Tekk Fallou Seck ak Ousmane Sarr ñun ñi nekkoon foofu di leen xaar ñun sax sunu xol neexul bu ngeen xoolee Fallou sekk ñi ko xam ñëpp xam ni c'est un jeune brillant koo xam ni dafa am xadar mais bi mu génnee démb yaramam daa dee ndax lim ñu wax mooy mënumaa génn bàyyi gii Marius Sagna ci biir kaso bi kon nag donc nitu dëgg valeur ak FRAPP France dégage SNP FDS ak ñi bokkoon ci collectif bi nga xam ni ba laataa ñoo lànk bi di taxaw ñoom ñëpp ñoo demoon pale ba léegi ñu ngi taxaw di soutenir ñoo lànk nekk ci biir ñoo lànk taxaw di xeex injustice yi nga xam ne moo am ci réew mi di di di yëgal sénégalais yi ne leen mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam président Macky Sall biñ koy fal di ko jox suñu réew en 2012 du lii moo taxoon ñu jox ko réew mi ay injustice la woon te injustice dafa war a dakk ci réew mi Sénégal en 2020 vraiment war nañ dépasé fi ñu toll tey ci distribution de flyers yi nga xam ni nekk nañ ci le 25 janvier prochain samedi bii di ñëw rond point liberté 6 marché Grand Yoff lañ koy defee rond point liberté 6 marché Grand Yoff ah mais di wax ni tam aussi le vendredi 31 le dans le vendredi 31 2020 euh, euh, euh, marche bi nga xam ni war nañ ko def mu ngi mu ngi itinéraire bi ñu ngi ko jàpp. avenue Cheikh Anta ak poste Médine di ci woo sénégalais yëpp di leen wax ni Sénégal ñoo ko bokk journalistes yi yéen sax ñu ngi leen di invité ci marché yi ngeen di ñëw jor seen caméra sol ñoo lànk taxaw ndax li ñuy xeex yéen ñëpp ci ciy gis. avant ñuy continuer sur euh, les questions réponses damay fixe juste les annonces que Fallou a a a sur la version wolof. donc nee nañu ni euh, première action bi ñu bi ñuy annoncé tey mooy comme Guy Marius Sagna dañ ko topp ba ci prison bi di ko xoqatal di ko privé de ses droits ñu ci bëri ñu mel ni Simon Kouka bu Y'en a par exemple il a cherché à avoir un permis de visite pour dem seeti ko ñu bañal ko ko donc ak Sénégalais yu bëri nangu ñu dem seeti gi pour que ñu ñu ñu manifester ko seen soutien donc demain dañuy appeler tous les citoyens ñi bëgg seeti Guy Marius Sagna ñu bëgg dem pour euh, pour ñu ñu ñu renforcer ko ci combat bi mu nekk di mener pour le peuple sénégalais le patriote kile est que demain incha allah vendredi que ñu dem tribunal dem uti ay permis pour dem seeti Guy Marius Sagna première chose deuxième chose mooy proximité yi fàllu wax na ko ça va se poursuivre flyers fépp ça va se poursuivre après hier mercredi samedi incha allah dinañ dem tàmbalee marché samedi bu front de terre ñëw rond point liberté 6 jëm marché Grand Yoff leneen li fàllu annoncé mooy euh, manifestation bu mag bu euh, collectif citoyen ñoo lànk démembrement bu Rufisque di organiser suba di ci woo Rufisquois yëpp di ci woo sénégalais yëpp ñun tamit incha allah coordination nationale bi euh, dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci dem donc permis de visite yi 9 heures lañ koy dee délivrer au tribunal que bépp sénégalais bu bëgg soutenir Guy Marius Sagna manifester ko soutien am ci bi ñu koy xoqatal ba ci biir prison bi suba na jël un peu de son temps à partir de 9 heures dem tribunal comme ni ko ko yoon maye mu dem jëli permis de visite pour que mu dem seeti ko loolu mooy information bi l'autre chose mooy wax nañ ko dinañu woy di dem rencontre ak nit ñi mais notamment chef religieux yi voilà que ce soit l'église ak euh, lépp luy euh, nu mu tuddati euh, xalif généraux yi incha allah ñu ngi planifier agenda pour dem seeti leen dinañ leen ci informer l'autre chose nag pour boucler la boucle la grande annonce mooy manifestation nationale bi ñuy amal incha allah le vendredi 31 janvier prochain ci Sénégal fépp dinañu am ay mobilisation ci diaspora bi dinañ ko amal mais ci Dakar fii incha allah à partir de 15 heures vendredi 31 janvier dinañu tàmbali buntu université Cheikh Anta Diop de Dakar mooy fi nekkee camp Jérémy jëm post Médina incha allah.